léegi ci bile plateau. je voudrais demander à nos collègues euh, du Togo si en fait le président Faure euh, Faure Eyadema veut transformer le Togo en royaume parce que son père était président du Togo son père que Dieu ait pitié de son âme meurt c'est son fils qui devient président le fils qui devient président il ne veut pas quitter la tête du Togo je le dis Parce que ce que je souhaite pour mon peuple, le Sénégal, c'est ce que je souhaite pour le peuple togolais. Si le président Macky Sall avait fait la même chose que Fauré Adema, mais on se serait battu, on se serait entretué, mais on ne l'aurait pas accepté. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas accepté. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. des mois, depuis des années, Fauré Adema interdit les manifestations. Il se prend pour qui Il y a deux jeunes Togolais. Chers collègues, Chers collègues, nous des le avec le respect des Madame la Présidente, je souhaiterais que le président du Togo ait beaucoup plus de respect pour son propre peuple. Il y a deux jeunes qui ont été condamnés pour outrage parce qu'ils ont dit, je cite, Monsieur le Président, le Togo n'est pas votre propriété. Et nous, on doit venir de ça si je n'en parle pas, ça veut dire que la même chose pour le Togo, je souhaite la même chose pour la Guinée ou pour le Cap-Vert. Madame, le, euh, Madame la Présidente, euh, les élections législatives, c'était le 29 avril. Le 19 avril de la même l'Assemblée nationale adopte une nouvelle constitution, dix jours avant. Mais il y a un problème. Si on l'avait fait au Sénégal, je n'allais pas en fait accepter cela. Ça, c'est une démocratie néocoloniale, comme au Sénégal. Hein. Comme dans tous nos pays, nous avons des démocraties néocoloniales. Si, si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement, mais les militaires vont prendre le pouvoir. Or, on ne souhaite pas que les militaires prennent le pouvoir au Togo. Ce n'est pas bon. Il faut laisser les populations, d'accord, manifester euh, euh, leur point de vue, manifester, faire des manifestations, etc. Votre temps est écoulé. pour vous. alors mu ngi noonu nu euh, déglu bu baax baax kàddu yi nga xam ni euh, moom euh, Guy Marius Sagna daal dina ko yëkkati fële ca parlement bu CEDEAO daal di yëkkati ay kàddu donc jagleel ko kii di jiite réew bu Togo di wuyoo suru Faure Gnassingbe moom nag Guy Marius Sagna mi ngi nuy xamal ni baayam moo jiiti woon lii di Togo daal di génn àdduna doomam daal di koy donn foofu rek ca biir réew waaye daanaka boobaak léegi fas yéene wul organiser li nga xam ne nag moom moo di élection présidentielle même manifestation yi nga xam ni euh, ñu ngi koy interdit foofu comme nañu ko gisee woon fii ci euh, biir euh, Sénégal mu nekk yoo xam ni moom Guy Marius Sagna ñaawlu na ko bu baax a baax waaye aussi ci ba ñuy waajal li nga xam ne nag moo di élection euh, présidentielle ci euh, atum 2024 euh, bi yembook li nga xam ne moo di 25 mars. Mhm. daanaka ay fan rek desoon lii di député dañoo daal di daje adopté li nga xam ne nag moo di beneen constitution. Mhm. boobule loi moom président daal di koy promulgué ba mujj des ci li nga xam nag moo di ca boppum réew mi moom Guy Marius Sagna di ñaaw lu baax ba kàddu yi nga xam ni wala mbir yi nga xam ne mooy am fële ca Togo. Mhm. mu daal di ko yëkkati fële ca bopp CEDEAO. waaw nan nga mën jàngatee acte bi nga xam ni moom gi Marius Sagna yëkkati na ko waaye aussi kàddu yi nga xam ne yëkkati ko jëmale ko rek ci euh, ki jiite réew bu Togo. Mhm. Euh, déjà li may njëkk a euh, seetlu rek mooy ne déjà changement mën nañ cee am yaakaar et puis le Sénégal est bien représenté foofu ca parlement bu bu CEDEAO te li mhm. may wax. defe naa ne ku déglu kàddu yi nga xamante ne nii Guy Marius Sagna yëkkati na ko dafay nekk lu am solo parce que c'est-à-dire yàlla moo def ni Sénégal moom mooy exemple ci ci réew yooyu noonu. Mhm. c'est-à-dire on a eu un président boo xam ne malgré intention yi mu amoon pour installer xeetu dictature yooyu mais il y a dafa amoon en face de lui un peuple boo xam ne permettre ko mu mën a am loolu. Mhm. et à un certain moment il s'est rendu compte que li mu bëgg mënut a nekk parce que lii xaw ma Faure Gnassingbé euh, di def fële ca Togo. Mhm. mais président Macky Sall la même chose la bëggoon def au Sénégal. peut-être que population mooy euh, ñoom ñoo doon ba mu leer le président que am na loo xam ne bu bëggee def au Sénégal euh, du ko réussir. Mhm. donc Guy Marius Sagna déjà kaddu yu mel nii. di jib ci biir parlement wu CEDEAO je pense que déjà c'est déjà une bonne chose mhm. parce que c'est-à-dire euh, ci wàllu diplomatie am nañu leadership boo xamante ne Sénégal am na ko te loolu mhm. defe naa ñëpp ñëpp ñëpp mën nañ ko nangu c'est-à-dire da ngay xool ci sommet yu président Bassirou Diomaye Faye di dem ak yëpp da seetlu ne naturellement c'est-à-dire dafa doon benn leader donte président bu ñu soog a fal ñam fay fekk ñoo ko mag fuuf. am na président yoo xam ne ba ñuy falu euh, ci seeni réew même le président Bassirou Bassirou Diomaye fay ganeegul àdduna. mais n'empêche ça dafa am leadership boo xam ne tey ñun ñoo ko war a incarner. et je pense que euh, député bu mel ni Guy Marius Sagna c'est logique boobu la nekk. te ñun ñu war a inspirer yeneen réew yi. et ça me su may déglu Ousmane Sonko muy wax ne. ñun dañoo am responsabilité wu inspiré waxuma la réew Afrique yi waaye àdduna bi. parce que loolu c'est important tey Afrique bëri réew yoo xamante ne peut-être ñun chance bi ñu am. et puis euh, gis nga tey réew yu mel ni réew yu nekk ci biir alliance des états du Sahel. Mhm. nga xam ne def nañu révolution comme ñun. mais yàlla moo dogal ne ñun suñu révolution dafa gën a rafet même si bëri na ay ñu ci mën a euh, lim ci ay mbir yu yu doywaar yu fi xew bëri na bakkan yu rot mhm. euh, bëri na yu président bi doon jéem mais finalement fan la mbir yi mujjee mooy si urne yi mhm. démocratiquement te loolu yaakaar naa ne am na réew yu fi nekk yoo xamante ne ñoom sax ñoo ñu jox yenn saa ay cours démocratie alors que seeni biir réew du n'importe quoi moom moo fa am mhm. dama gëm ne cest à li li yi di théoriser que démocratie fii la juddoo parfois dama koy bëgg a gëm parce que am na réew yoo xam ne ñooy ñëw dañuy wax waxu démocratie alors qu'en réalité euh, ñoom ci seen i biir réew par exemple Macron yi fi ñàkk yi fi yi fi yebaate yi mu commencé di def en France fan la ko teg te réew mi ñoom nee nañ réewum démocratie la mhm. je pense que la même chose bu amoon au Sénégal yaakaar naa ne dinañ ci am taxawaay boo xamante ne du du demee noonu mhm. donc tey euh, je pense que Euh, fii fii la démocratie dëkk. loolu dafa war a inspirer yeneen dëkku Afrique yi. Hmm. parce que dafa bëri loo xam ne dañ ko déformer ci suñu histoire c'est-à-dire ñu bëri jàpp nañu ne démocratie moom ci réewu tubaab bi la. Euh, hmm. ci nasaraan yi la ay quelque chose comme ça mais ñun dafa am démocratie boo xam cest à naturellement ci suñu gis-gis. Hmm. dafa am loo xamante ne dafa dafa dafa dafa bokk si ñun. Guy Marius Sagna li muy wax noonu je pense que foofu lañ nar a mujjee finalement si là le bi posé wu mooy Sénégal génn na ci. mën nañ jàpp Sénégal génn na ci nekk réew moo xamante ne nii ay puissance étrangère ñooy toog fee di ko manipuler réew yi nekk ci euh, euh, ci AES wala sax réew mu mel ni euh, par exemple la Guinée gis nañu coup d'état bi fa am ak yeneen ak yeneen parce que coup d'état bi il faut ñu comprendre que cest à du du loo xam ne nii ay nit dañoo jóge fee rek ñëw ne ñoom dañuy jaay doole askan wi pour jël nguur gi. Mhm. parce que tey dañuy fal koo xamante ne dañ koo fal démocratiquement mais par contre mu bëgg a ñëw def comme si euh, li président bii di def ni président Togo bi mais ñëw ci réew daanaka euh, tënk réew ma. yow réew mi da nga ko doon ci sa baay continuer di ko wëyal et eh, finalement nguur am na noo si yàggee da ngay jàpp ne sa bopp la. xoolal tey exemple bi moment ku la wax ne la moomoo réew mi da nga jàpp ne kooku daf laa tooñ. daanaka sax loolu tëj na si ñaari nit comme ni ko Guy Marius Sagna waxee ñaar ñoo xam dañ ko xamal ni Togo moomoo. te nag ma wax la benn affaire pour que ñun ñun sénégalais yi cest bu ñu dawaloon tuuti ñu bi bi gars di def seen ay seen di woote par exemple euh, am na benn dîner de gala je pense. bu ñu mm-hmm. bu woote woon. defoon ordre du jour bi lu jëm ci non au troisième mandat ñu interdire ko am manifestation yu pré prévoiroon le président Macky Sall moment boobu cest à pour comparer ko ak tey jii situation bi bi bi Togo di dund. Mm-hmm. mais président Macky toog di wax ne euh, ñiy wax naan jàmm gën troisième mandat. Mm-hmm. président Macky Sall nee na ñooñu bëgguñu jàmm. c'est-à-dire ki lay wax ne la waroo def troisième mandat sax da nga koy xool comme benn waay boo xam ne moom bëggul jàmm. Mhm. parce que nguur dafa am nit ñoo xam ne xajul ci seen bopp yi daf leen di dofloo. et loolu moom moo dal réew yu bëri ci ci Afrique. Mhm. loolu malheureusement ça va prendre du temps mais dinañ ko régler au fur et à mesure te nag régler ko nag moom ah, amul amul amul amul amul foo xam ne c'est-à-dire bu ñu sañoon Sénégal tey ni ñuy demee ci élection euh, ñu ne président Bassirou Diomaye Faye gagné na élection présidentielle yi. Mhm. ñu sañoon réew yëpp noonu lay demee parce que changement faaw mu am. ay pas yu màgget yoo xam ne xoolal président wu xaw ma Cameroun la xaw ab màgget boo xamante ne nii. Nigéria mais buy dox mënut a dox distance bi bu ko bëggoon dox. dina mm-hmm. dina def 10 minutes. nga ne kooku moom mooy président wu réew mi xel mi c'est-à-dire di yor réew. Mm-hmm. ngeen teg ko foofu kooku fan la jëmale réew ma. donc à chaque fois je saa dis il faut que réewu Afrique yi jeunesse yëpp comme ni ko jeunesse su Sénégal ak jeunesse su Mali ak jeunesse su feneen ak feneen defee. Mm-hmm. il faut que ñëpp jël seen ay responsabilités léegi nag. Euh, luy lakk kenn du ne non dañuy xool ndox mu set ak ndox bu tilim bu ñu koy fayee. Hmm. c'est-à-dire tey ñoom il faut que ñu jëlaat seen souveraineté en main hmm. et que ces ñu dégager leen hmm. léegi kenn bëggut armée di jug di def coup d'état mais bu fekkee ne moo fa sës tey jii xoolal réew mu mel ni Togo d'ailleurs Guy Marius Sagna mi ngi koy wax si biir waxam mi ngi naan mais lii bu continuer coup d'état day am. benn nit boo xamante ne moom nguur gi ci bàyyam la ko doon ne woon yore ci bi ci di di euh, nekk président la république mais notre réew mi kenn du wax. réew yoo xamante ne journaliste boo fa génne naan état bi nangam ak nangam ñu jàppale tëj ci kaso bi. amul ku sañ a taxaw opposé wu ci biir réew yooyu. donc réew yooyu il faudra que seen ay population jug jël moo tax ma ne la Sénégal dafa am loo xam ne nii ñun ñoo si exemple loolu la yàlla dogal yàlla dafa dogal ne ñun ñooy exemple ci loolu. Mhm. aujourd'hui un leader comme Ousmane Sonko boo seetloo ne da ngay gis yeneen jeunesse yi nekk ci yeneen réew yi sax mhm. dañ koy bàyyi xel. di ko déglu c'est parce que dafa am leadership boo xam ne fii la war a juddoo. Mhm. Euh, ñu mën ko ñu mën ko mu mën a répandre ci yeneen réew yu bëri et je pense que loolu euh, rôle la boo xam ne nii le président Bassirou Diomaye Faye conscient na mhm. que rôle boobu daf ko war a jouer mhm. foog ñu jënd jëlee ces président là ci bopp réew yooyu noonu parce que ñooñu fii ak ñu ngi fi li ñu bëgg dëgg-dëgg xoola par exemple problème bi am tey jii au sein de la CEDEAO le problème mooy ñun bu doon ñun non dajaloo nañ ba déggoo ba def la ñuy def mais le problème mooy dafa am de gouverneurs yoo xamante ne nii dañuy nekk ci bopp réew ya mais nekkin boo xamante ne nii jaa teguñu dara ci yoon ay puis ay euh, yeneen réew étranger ñoom ñooy nekk fële réew mu mel ne France par exemple mais nekk ci ginnaaw def lu ko neex ak yenn réew yoo xamante ne ko fa nekk moom daanaka xamul sax fu mu jëmee réew ma quoi réew yoo xam ne moom développement moom ñoom kenn xalaatul sax réew mi dina développé ñoom l'essentiel mooy dañ fay teg benn paa boo xam ne day toog yore famille wam di la muy gérer mais genre yi est-ce que nekkul nekkul sàgganteewu li nga xam nag moo di CEDEAO parce que parce que boo xoolee fu nit nekk am fa li nga xam nag moo di deux mandats wala trois mois trois te gisoo benn yoon CEDEAO intervenir bu fekkee bu fekkee coup d'état dafa am mu ñëw commencé di loolu jëfinu naa féq mooy problème bi c'est-à-dire li xew e jaar na hmm. na ne bi yëpp li mooy xeetu doxalin boobu yow munoo kii suy teg nii lu dul yoon. Uh-huh. Euh, nga taxaw mooy li xewoon au Sénégal autant c'est-à-dire président Macky Sall day dem dal ci kaw Ousmane Sonko dóor ko dal ci kawam gendarme yi toj ay vitram nga gis nga gis waaye loolu yooyu yëpp seen problème yooyu seen yoon newu si. Uh-huh. président Macky bu toogoon tey jii ne damay def troisième candidature euh, conseil constitutionnel na ko defal CEDEAO day toog ne tekk. Uh-huh. li xew Togo nii day toog ne tekk. Alpha Condé ba mu nekkee ci biir réew réew réew mel ni ku dof mais jël réew mi yëpp tey ko ci loxoom. ba pare préparer ay forces spéciales yoo xam ne dafa bëggoon bis bu euh, population bi naroon révolté forces spéciales yooyu ñoom ñooy ñoom ñooy gérer mbir yi. Mhm. cest dire yooyu boo koy def mais CEDEAO elle est là ñoom ñu lay gis nii duñ ci wax dara. Mhm. juste parce que yow li nga xam ne ni moom lañ la fa tegee en tant que gouverneur mooy li nga xam ne moom mooy intérêt wu France nga continuer di ko wéyal yow moom yaa ngi ci yaa ngi ci yoon par contre. un militaire boo xamante ne dëkkam moom moo ko ñor mu toog ba gis ne kat suñu sama réew mi kii ñu ko dénk donte dañ ko fal démocratiquement mais kii mi ngi yéeg suñu kaw bopp yi koo xam ne dañ koy fal mi amul folleeku dee moo ko fi jëlee. Mhm. te mu deewee jëlal exemple euh, du du beneen réew ba waay ci ñoom début. Mhm. mais de de da ngay oui Tchad. Mhm. mais kii day dee doom ji ñëw ah, ne moo mooy nekk moo koy donn léegi ñun fa xanaa kay léegi dañu delluwaat ci ay royaume loolu dama gëm ne jeunesse ñoom ñoo ko mën a xeex parce que réew yu bëri tey dañoo taxaw xeex ba li nga xam ne nii euh, moom mooy seen souveraineté ñu ñu mën ko am. donc mais mais mais mais moom moo rupture euh, générationnelle bi nga xam ne am na biir Afrique. par exemple Sénégal fii le président Diomaye nga dem aussi ci sous région bi euh, gis nañ Doumbouya gis aussi ñeneen ak ñeen Goïta est-ce que loolu tey jii mënul nekk benn frein ci li nga xam nag moo démarche CEDEAO bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye dafa woote li nga xam nag moo ñu réformer boobu la institution est-ce que ça ça sera possible. déjà ñun je le dis à chaque fois c'est-à-dire il faut ñu comprendre parce que débat bi gis nga débat bi ñu posé nii mhm. ñi siy wax ñëpp à près on dit la même chose mais peut-être forme bi ñu koy gisee moom mooy wutee mhm. mooy déjà premièrement le problème bi njëkk a posé wu mooy ñun xaajaloo moo ñu arrangé wul comme je le dis à chaque fois mhm. parce que dañoo am ay noon yoo xamante ne nii ñu ngi nekk à l'extérieur te nu ñu jaaree suñu diggante ba xaajale ñu pour ku ci nekk li nga mën a def ci sa morom nga nga nga parce que tey. xoolal tey mais xaajaloo boobu est-ce que est-ce que est-ce que euh, am. parce parce que yaa ngi koy wax léegi. Mhm. Euh, dafa bëri ay màggat yoo xam ne ñoom ñoo jiitee Afrique. Mhm. nga gis aussi beneen génération buy jóg. bokk doon gis-gis ak ñi nga xam ñoo fi nekkoon ancien président yi. Mhm. donc tey jii ñoom ñaar ñu tasee ci biir CEDEAO euh, lan mooy doon seen seen seen avantage exactement kenn ku nekk xëcc jëmale sa ko côté. oui CEDEAO c'est-à-dire. maanaam soo déggee ñu naan président dafa war a euh, dox ay jéego. ngir indiwaat réew AES yi c'est pas pour dire que maanaam c'est-à-dire il faut ñu bañ di rester ci ay tour parce que gars yi boo nee CEDEAO rek dañu jàpp ne CEDEAO mooy kuréel ba nga xamante ne nii dafay yëkkate ay sanctions teg ci yeneen réew. moom mooy dox doxalinu naa fekk bu ay président di nekk si dictature cest a dire tour bi tour bi. man dama gëm ne sax dafay jar sax ñu tuddaat que nit ñi dañoo miin CEDEAO d'une boo xam ne soo nee CEDEAO rek seen xel ci loolu lay dem. mais mhm. li président war a def man de li ma gëm boog man mooy déjà il faut ñu comprendre benn mbir ñu jubóosee ba pare bala ñoo avancer mooy ñun xaajaloo arrangé wuñu benn mhm. c'est là ñun xajaloo arrangé wuñu. Mhm. c'est-à-dire da ngay gis c'est-à-dire réew mi ay puissance ñoom ñoo koy xëccoo sunu territoire yi dafa ndaw. loolu sax c'est-à-dire sunu réew yi ndaw ci doole demeewul noonu xoolal tey jii euh, sur le plan militaire c'est là ñaanuñu ko yàlla gars yi ñu bëggoon dal suñ kaw dañ ñuy sax saaxee. dañoo soxla ànd par force. parce que li ñu lié moom moo ëpp li ñu divisé. loolu mooy première chose bi loolu faaw ñu tenir ko en compte ba pare. te de jàpp naa ne loolu ñu ñëpp d'accord nañ si léegi c'est-à-dire on peut avoir un Macky à la tête Sénégal mais taxul le peuple sénégalais ñàkk juboo ak yeneen peuples yi. Mhm. c'est-à-dire aujourd'hui ñun bu ñu delloo quelques weer si ginnaaw ñun est-ce que euh, réew mu mel ni le Mali wala laa Guinée wala euh, euh, par exemple. Nigeria Burkina par exemple. Mhm. est-ce que. ñoom dañ naan daal ñun Sénégal ñu mënatu ñoo bokk ak ñoom yoon parce que Macky moom moo fa nekk et c'est un gouverneur de de de Macron. Mhm. c'est-à-dire suñuy suñuy jël ay décision bu ñu sóor rek ci ki nga xam ne moom moo jiite réew mi mais nañu sóor la population. Mhm. léegi nag foofu laay waxee ne pour que problème bi pour que li ñu bëgg dëgg ci CEDEAO pour mu mën a nekk il faut que ñu raxas bopp réew yëpp. loolu nag ñun mënuñu ko def parce que Bassirou Diomaye Faye mënut a dem ne président wàccal kii moo ñëw toog mhm. loolu moom laay wax ne peuple yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew yooyu ñoo war a jël seen ay responsabilité mhm. de la même manière bi ko euh, peuple Burkina defee peuple Mali defee ko noonu peuple euh, yeneen peuple defee ko noonu mhm. mais peuple yi ñoom ñoo ko mën a gérer léegi su ko defee à la bu fekkee ne à la tête de chaque pays nous avons par exemple euh, Assimi Goïta nous avons ay ay ay ñu am Bassirou Diomaye Faye yeneen jeunesse yi nekk ci beneen réew yi ñoom tamit ñu xeex ban mën a retrouver wu ci ci bopp réew yooyu mais su boobaa mooy combat bi réussir nañ ko le problème mooy c'est-à-dire leadership bi bi nga xam ne ni Sénégal mi ngi koy am na ko xoolal tey soo seetloo réew mi bu amee coup d'état quelque temps après beneen réew day am coup mhm. parce que situation bi am ci réew mi dafay inspirer yeneen réew yi da ngay xool ñu nga toog ñu ne la Alpha Condé ma nga nekkoon ci réew ma mais Alpha Condé li mu nekkee nii loolu la président au Togo bi nekkee mhm. et loolu ça inspire cette bi nga xam ne xëy na suba gis ñu ne benn militaire xëy na euh, dem na dal na ci kaw Alpha Condé def na ko coup d'état mais récupéré na réew mi téye ko c'est euh, réew moomu noonu mais ils vont se dire ñun tam pourquoi mënuñu def la même chose. parce que mm-hmm. kii bu ñu ko bàyyi day toog suñu kaw bopp loolu maanaam dafay doon dafay moo tax ngay gis coup day am fii nga toog quelque temps mu am feneen nga ko toog te boo deful attention coup d'état fépp la nar a wër. Mhm. yenn réew yu am chance peut-être comme ñun euh, par magie ñoo si génn. ba mhm. tey jii ñu ñu am ay élections présidentielles yoo xam ne euh, fal nañu président de la république te boo fàttalikoo le président Macky Sall. dafa mel ni sax mu ngi doon sóor loolu parce que si ay discours dafa doon dem bay menacé di wax ne suñu waxtaanul mhm. euh, am na ay forces organisées yu fi nekk yoo xam ne mën nañ jël pouvoir bi par chance alhamdulilah tey ji ñun jaaruñu ci ci processus boobu noonu mais li wér te wóor mooy du nekk lu yomb. Mhm. léegi nag man dama bëgg ñu comprendre tey ji posture Sénégal lan la war a doon. Mhm. maanaam ñun ñëpp dañoo bokk famille si laa. Mhm. am ñoo xam ne nii c'est-à-dire am doxalin bu amoon ci biir famille bi am ñu frustré génn. am ñoo xam ne ñu ngi ci biir famille bi. te daanaka seen ay euh, euh, doxalin euh, daanaka dafa xaw a doy waar. mais c'est une si laa. c'est-à-dire li nga mën a def mooy c'est quoi le problème moo tax keroog discours bi président Bassirou Diomaye fay def am solo. Mhm. lan mooy problème bi mooy ne kat CEDEAO dafay nekk di def yi fi naafeq benn CEDEAO euh, pour moom lépp lu mu war a def mooy mën a sanctionner ay réew yoo xam ne ci suñu biir la ñu bokk. Mhm. ci loo xamante ne ay influence étrangère moom moo koy waral CEDEAO à chaque fois euh, bu fekkee benn président nekk na di def ay dérives ci biir réewam. Mhm. mais normalement tey jii li ONU di def. mais président ñëw nar a wàcc yoon ñu taxaw ne la sëñ bi eh yemal fii foofu nga yem. Mhm. CEDEAO yëpp bu ñu defoon benn bloc. ku nar a ku nar a ku nar a weesu sa sa sa sa li nga xam ne moom mooy li sa constitution wu réew wax ñu taxaw am benn tey jii ay takk der yoo xam ne daf dafay kuréelu CEDEAO gi yëpp ñoom ñoo koy mettre en place. Mhm. taxaw ne la sëñ bi lii da koy def. et eh, tu peux prendre exemple de la Gambie. Mhm. fu Sénégal ak CEDEAO mën a taxawee ne Yaya Jammeh li nga bëgg a def du fi amee. da nga fiy mais CEDEAO bu ko defoon tey Togo ki nekk Togo ak même bon. peut-être bu fekkee ñoom ñoo fa majoritaire du mën a nekk. mais il faut que mi majori majorité bi nekk des yoo xam ne ñu respecté yoon la ñuy doon ñu respecté seen ay constitution la ñuy doon. et pour loolu il faut que jeunesse yi nekk ci biir réew yi jël seen ay responsabilités. absolument loolu moom mooy la solution c'est-à-dire réew mu sa problème ba pare. Uh-huh. ba réew mu nekk ñun tey ni ñu def tey ba am suñu Bassirou Diomaye fay uh-huh. réew bu ci nekk bu defee noonu ba am tey ji un digne fils du pays boo xam ne dafay défendre les intérêts de ce pays ba pare uh-huh. gëm li nga xam ne moom mooy di africanisme donc bu ko defee ñu mën a dajaloo njiit yooyu noonu tey xam nga le courant ça passe tey ji fay Bassirou Diomaye Faye buy gisante Birahim Traoré suñu waxtaanee dañuy déggoo parce que ñoo bokk fi ñu nekk. ñoo bokk gis-gis. naturellement. Uh-huh. léegi bis bu réew yëpp defee noonu ba am ay njiit yoo xam ne seeni réew moo leen tax a jóg Afrique moom moo leen tax a jóg ce problème dina neex a régler. mais bu dul uh-huh. loolu ça va être très compliqué ak ces dirigeants là yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp même réew yi mais ak lu mën a am. Uh-huh. cest à bu ñu fàccee benn mbir moo ñun xaajaloo jiguñu te waruñu si dem. ak lu mën a xew surtout situation bu ñu toll fii sax.